bépp xalaat kët bu amul xam-xam su waxee xelam du dal bépp boroom xam-xam bu amul xel su àttee daanu parce que yonent bi boowu ko fi te al ulamaa warasatul anbiya seetal loolu ki uutu sañu la yokk sañu la yàkkali jigéen ñi yéen a ngi nii toog ma laaj leen ndax kuñ ci jox dépense li la sa jëkkër jox ci nga yem wala danga yokk ah da di yokk waaw góoru meew Gloria yokk rek kaay leen ñëw leen fii rek dañ koy saraxe nag dem noppalu ji pot ñaata la benn pot ne pot ñaata ñetti pot ku ci jënd yàlla nga demal jana ñetti pot mille francs moo gën saraxe foofu ay jigéen lañ ñu bàyyi naaju dem leen fii nit ñi jënd ci ma doog a bu kenn way nag waykat yi jënd leen ndax sarax nañ leen bu dee tablette bi nag huit mille ku ko mën a jënd it baax na jox ma benn tablet man dem leen ci biir fële soxna yi jënd si aajo dana faju ma pare danaa ko laayi nag